mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM di nuyu rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yeeg mbokk internet bi ñi nga xam ne ñoom ñooy teewlu saa su ne sax dimanche bu jot émission gox bi si rajo Rewmi FM tey ñu am ci gan di ci dalal nag euh, baas kan nekk njiital euh, Cambérène sama diwaan di yeewoo ci goxu Cambérène Libasse ñu ngi leen nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw euh, bisimilahi rahmaani ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci baala alayhi salaam di si Chérif Abdoulaye yàlla yàggal ko te wéral ko ñaanal xalifa islaam yi ci réew mi yëpp yàlla doolu seen jàmm doolu seen xéewal doolu seen sutura ak seen teraanga mhm. ñaanal lu bayti rasul yàlla dafa leen jàmm dafa leen war dafa leen xéewal nuyu la bu baax mhm. yow aussi Ndemba mhm. euh, rafetlu sa liggéey aussi macha allah yal na yàlla barkeel di di di sant di gërëm waa Cambérène ak képp koo xamante ni si ni yaa ngi ñuy déglu en ce ñu ngi leen nuyu di ñaan émission bi yàlla nañ ci wax lu jariñ réew mi incha allah incha allah rabbi alors dañ koy dooree rek ak coronavirus bi te lool nañ fi ay jamono mu tewoon ticc léegi nag mën nañ am xel ni wala am espoir ni que tey li nga xam ne moom moo jëm ci tendance yi du mu wone li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoro bi mi ngay wàcc euh, ban jàngat nga ci am sa commentaire gu njëkk ci jàngoro bi ni mel. Euh, jàngoro ji moom sant ci yàlla parce que jaam la ñun euh, toujours suñuy wax dañuy bàyyi xel ni ñun ay jullit lañu mm-hmm. Euh, ay jullit nanu ba pare dañu gëm Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam suñu imaam libaas daf ñu ci artu woon ca tàmbali ga ni ñu bu kenn móolu bu kenn wax dara nañu xam ne jaam la bu fi ñëw <laughs> li ñu ci man mooy ñaan ci yàlla te déglu médecin yi <laughs> yàlla suturaal nañu nag déglu nañu médecin yi ñaanoon ci yàlla am yaakaar ni yàlla nangu na ñaan gi ba fi mu ne mbir yi ñu ngi wàcc bu baax a baax ñu ñaan yàlla mhm. mu jeexal ko mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk mhm. barke bàyilawar may Seydina Issa vraiment loolu moom euh, lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñuy dund la mhm. et lu ñuy ñaan sunu borom dimbali ñu ci ba mu jeex ak jàmm la mais naam mi ngi fii mais ba tey jàngoro bi nag dañul mi ngi fii mi ngi dund ak ñun est-ce que mesure wala geste barrière yi tey gënu waruñu ko gën a mun a yokk tey ngir yokk li nga xam ne moom moo jëm ci sensibilisation ci jàngoro bi. effectivement fi ñu toll nii tey parce que soo demee mbir ba mu toll ci cappaandaw la. Hmm. pour man danga war a farlu rek. xam nga dëkk na fi am ñu décrété état d'urgence mhm. taxaw génne benn budget pour riposte Covid affaire yooyu noonu yëpp ñu def ko pour mhm. le président def ko pour mën a dimbali askan wi mën a fexe ba nga xamante ni si nii dinañu gën a nekk si jàmm ndax askan moom mhm. mënul taxaw te waruñu comme yàlla dogal nañu amoon allure boobu noonu ñëpp ànd ci engouement boobu noonu je pense que ni bu ñëw ba ci cappaandaw li farlu gi fii la war a gën taxawee mhm. fii la ñu gën a mën a gën a teewloo mbir waaye li ñu sentir instant bi ni mooy mhm. bàyyeeku bi dafa commencé waat am ko mhm. bàyyeeku bi dafa commencé waat am nemmeeku ngeen ko sa diwaan Cambérène bi nga dëkk waaw xam nga ñun euh, on vit en communauté cest à euh, ñun sonnoon nañu ci corona bi mu door a tàmbali parce que Cambérène dafa nekk commune boo xamante ne si ni amul moyen mais nous avons des partenaires dañ daan dem si ñoom di waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ñu pour ñu dimbali waa Cambérène ci situation boobu li ñu ci doon mooy tey peut-être ci kanam di nga ci ñëw. dafa mhm. am benn émissaire bu fa nekk. boo xam ni ONAS moom moo ko fa def. Mhm. muy sonal askan bi ci feebaru. Mhm. poumon respiratoire ak. po ak lu nekk. donc yooyu bu nit dañ ko doon ragal parce que booy seet. asma ak affaire yooyu noonu lay gën a sonal mhm. corona su la jàppee en général mhm. du la bàyyi àlaxira la jëmee mhm. ñun loolu daf ñu tiitaloon moo taxoon ñu teel a jóg doon ci dox doon ci wax ba yàlla suturaal nañu ci sunu sunu sunu diwaan moom vraiment gëj nañ fa dégg cas amoon na ay cas mais gëj nañ fa dégg ay cas quoi vraiment. Cameroun sama diwaan ba jàngoro bi gane si fii ci réewum Sénégal. Mhm. yéen itam jóg ngeen ci def ay action ay lan la joxe ngeen li nga xam nag moom moo jëm moo war a fàggandiku ci warum jàngoro bi ni mel ndax def ngeen ci ay jéego yéen itam. effectivement euh, Cambérène sama diwaan bi mu amee comme ni ma la ko waxee seet nañ seeni i partenaire mhm. dem waxtaan ak ñoom dimbali nañu ci li ñu mën a dimbalee. dafa amoon benn comité de Euh, comité local de lutte contre Covid 19 bi. Mhm. vraiment bu Cambérène. Mhm. ñu leen di remercier au passage. Mhm. ñooñu dem nañ fa seeti leen. jaajëfal leen sargal leen jox leen li nga xamante ni si ni ñun moom lañu am. pour dimbalee ko Covid bi. bi ñu si jógee aussi dem nañu ci xabru Seydina Issa nga xamante ni foofu dañ jàpp ni ku jaaxle foofu ngay dem ñaan ku am nangam foofu ngay dem jël nañu aussi. loo xamante ni yóbbu ko fa. dem nañ ci ay daara yoo xamante ni ñu ngi Cambérène ku xool sensibilité am mhm. ak covid bi comme ni ñu ko waxee dem nañ foofu dimali leen mhm. dem nañu aussi ci marché bi dem nañu vraiment ci euh, ci askan wi waxtaan ak ñoom dëgg-dëgg mhm. gën a gën a gën a collaborer ak ñoom pour mën a xeex mbas mi nga xamante ni lu tax message bi ci ndaw ñi du jàll bu baax message ban bu sensibilisation ci askan wi ndaw ñi surtout xam nga xam nga ndaw deretam day tàng ndaw moom pour mu déglu la yombul stratégie ngay am. pour mu mën la déglu soo amul stratégie bi rek du la déglu. loolu mooy feebaru Sénégal parce que ñun en général dañuy yaakaar ni euh, dañu war a ñëw directement ci ndaw mi wax ak moom. Mm-hmm. mais tey. dama yaakaar ne bu ñu ko defoon en communauté ba pare gëm ko. Mhm. mën na gën a jur njëriñ quoi. Mhm. je pense que ni su ñu demoon Cambérène sama diwaan am na Cambérène am na beneen mouvement wala association bu nekk Parcelles Assainies. Mhm. comme comme Gofay par exemple. ñooñu su leen utiliser woon dañu mën a egg ci askan wi. parce que ñooñu ñoom ñoo jege askan xam nga tey ñu bari seen poste de responsabilité mayu leen. ñu wàcc à la base. et c'est malheureux. parce que ñoom duñ bi mais ñun ñun ak askan bi ñooy échanger. ñooy waxtaan ñooy demlante feebar bi koo ko expliqué yi mu gis ni muy def nit ñi ak réew yi àddina bi je pense que ni soo amee une très bonne communication bu jëm ci moom dina la bàyyi xel bu baax a baax da nga waroon jàpp ne dañu yéen mouvement yi wala yéen ñi nekk si diwaan yi dañ leen waroon boole ci mbir mi effectivement xam nga Cambérène li tax ñu am ci doole nii mhm. mooy dafa am euh, relais communautaire ñu leen remercier au passage mhm. Croix-Rouge ñu leen remercier au passage Euh, dañu dañu amoon taxawaay. Mm-hmm. ak ak ay ak ay médecins des hommes de la santé. Euh, le le chef de santé. Mm. le chef de du centre de santé Cheikh Saad bu ñu koy nuyoo passage Guèye Dieye mi nga mm. xam ne moo géré woon relais communautaire yi. ak Ndeye Mbaye mi coordonné croix rouge yi vraiment ñu mm-hmm. amoon ci taxawaay bu ama ama am solo. voilà ak mm-hmm. ak comité de santé bi nga xam ne moom moo nekk ci. hôpital bi aussi. Mhm. ñu amoon ci taxawaay macha allah. Mhm. yàlla na yàlla gën a dëgëral je pense que ni li tax Cambérène am ci ndam bu toll nii. loolu moom moo tax quoi parce que dañu gérer affaire bi en communauté. parce que mhm. nous nous vivons en communauté. ñun ay ëtt la ñu am. yow ak sa nijaay yéenay dëkk yow ak sa bàjjen yéenay dëkk. yéen ñëpp ngeen ànd ak sa cousin yi yéen ñëpp ngeen nekk ndox donc loolu. bu ñu bàyyee xel communauté boobu noonu di leen waxtaan di waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom rek. pense que résultat mën na am quoi. coronavirus nekk fii inondation yi tamit ñëw gën a yokk xar mi karaw donc mu indi ay jafe-jafe ci diwaan bi tey euh, taw yi ba ñu dooree mm, am ngeen lu leen metti seen diwaan ba Cambérène waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax euh, saa yi waxee inondation je pense que ne suñu xel daf ciy dem ko mooy suñu suñu rakk Pape Assane Gueye yàlla yàlla dolli leeram mhm. yërëm ko xaare ko àjjana barke bàyyi la arma seen ay comme ni mu ko waxee ci fépp rek dem bi jaaxaluñu parce que kul nafsin saayaxatul mawtu quoi hmm. bakkan bu ñam dund di nga ñam dee hmm. euh, kon gëmoon nañu ni Pape Assane dafa war a ñibbi ci boroomam hmm. ndax fii daf fi jaaroon rek mais ni mu demee mooy métit wi xam nga tey Cambérène man je le dis et je le redis mënuñu d'accord ak ku mu mënti doon ci àdduna mhm. Cambérène di percevoir quarante mille mètres cubes d'eau mhm. usée mhm. boo xamante ni si ni office national de l'assainissement du Sénégal moom moo ko fa def depuis trente ans mu nekk loo xamante ni lu ñu naqari la lu ñuy dund la ba pare ñun ñuy am problème mu ndox loolu doyul de on à deux pas de la mer xam nga des fois man je dis que ni sabotage la quoi lan lan mooy sabotage. li ñuy doxale ak Cambérène. Mhm. vis-à-vis ak assainissement. Mhm. vis-à-vis ak inondation yi. xam nga la moo tax. Mhm. Cambérène dafa yàgg contribuer ci développement au Sénégal. ce que xam nga ni bâtiment yi ngay gis fii nii yëpp ci ville bi suuf bi Cambérène lañ ko tibbee ci plage yu Cambérène lañ ko tibbee yëpp ko ci ay camion yóbbu ko est que xam nga ni Parcelles Assainies actuellement. Mm li ko dalee unité 7 jëm Padoa foofu la armée sénégalaise daañ ne sous parent ak armée française c'est-à-dire ñun dañu jël suñu lu ñu am jox ko état tey soo demee ci golf bii ñu def tey euh, cité cité mhm. Alioune Sow mhm. moom sax au moins delloo na njukkal Cambérène parce que def na cité du golfe de mhm. Cambérène parce que delloo si waat na ko Cambérène dalal jàmm bi suufu Cambérène la marine francaise bi nga xamante ne si ni moom moo nekk golfe mhm. suufu Cambérène la c'est-à-dire ñun suñu ay kilifa ñu leen di remercier au passage di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax suñu kilifa diine yi Baye Seydi Thiaw Baye Raan yàlla yàlla yërëm leen dolli seen leer tax nu seen barke barke Baye Laay mu baax mi ñu Seydina Issa alayhi salaam mi nga xam ne moo sanc Cambérène dafa contribuer bu baax a baax a baax a baax ci développement Sénégal pour président bu fi toog soo bàyyee xel loolu. Mhm. ak contexte bu la mën a bu la mën a dab. Mhm. ak situation boo mën a dund war nga bàyyi xel Seydina Isa alayhi salaam moo fi nekkoon ak colon yi centre sauvegarde Cambérène suufu Cambérène la. Mhm. centre horticulture Cambérène suufu Cambérène la. marché yi nga xamante ni tey dañ ko sax xañ Cambérène benn bi ñox ko Padois benn bi ñox ko Golf. suufu Cambérène la. trois cent soixante quatre hectares moom la moom la ñu jël jox état du Sénégal gis nga yi ma lay wax boobu ba léegi. Mhm. te benn bokk ceeg ca morom te boo mayee temps bi mën naa la continuer. Mhm. di la jox yeneen yu bokkul ak yooyu. Mhm. kon kenn ku nekk war nga bàyyi xel li nga xamante ni si nii moom la askan wi moom ak li nga xamante ni si nii moom nga moom. je pense que su ñuy cotiser pour jënd table. wala pour jënd chaise bu fekkente ni yow contribuer nga. war nga am sañ-sañ war nañ la bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax réew mi. Mhm. dafa am nu mu demee. réew mi ni mu tëddee mooy dafa am ay këru diine am ñoo xam ne sax bokkunu ak ñoom diine. Mhm. ñu leen nuyu au passage suñu mbokk chrétiens yi. Mhm. parce que ñooñ la ñooñ la ñooñ la constitution bi reconnaître donc pour man euh, jot. ak euh, xemmem ak bàyyi xel. gi ñu bàyyi xel yeneen këru diine yi. war nañ ko bàyyi xel communauté laayeen. lan mooy problème bi justement ci affaire inondation bi da jàpp ni dañ leen xaw a bàyyi tuuti ci wàll wi ni mel. du xaw de dafa ñor dañ lu bàyyi Cambérène ci boppam moom la ñuy seetaan sur tous les plans xam nga tey inondation bi rek nga gis. pour wax ci assainissement bi. Mm-hmm. mais tey Cambérène amul stade. dinañ ci ñëw. voilà yu dul yu bari yu dul jeex. Mm-hmm. mais ci inondation bi lañ nekk nañ ci mm-hmm. yem. bien sûr lan moo waral ndox bi di. taxaw ndox bi di mm-hmm. taxaw Cambérène xam nga lan la. kuy defar tali bi du AGEROUTE. kan moo ko yor du état donc c' est l' moom moo defar tali police euh, case ba. moom moo defar tali faja kaas ba. moom moo defaraat bi nekk ci ginnaaw unité 7 jëm unité 9 jàll unité 10. génn ji euh, côté côté côté Dior ndox yooyu yëpp dañuy wal maanaam ndox yi bu ñëwee day dugg Cambérène foofu la ñuy jaar dugg si Cambérène Cambérène su nekkoon ndoxu taw bi muy percevoir kese mhm. du taa parce que joor la naa Issa foofu daf ko tànn tànnaat ko moom xamoon na démb xam tey ndax démb la woon xam tey te wax nañu suba yii ñëw yoo xamante ni si nii ñun ñu ngi ciy teg suñu bët benn par benn donc ñun kooku du ku ñuy ku ñuy weddi du ku ñuy ko xamante ni si nii dañuy ginnaawal ay waxam ñun lu ñuy bàyyi xel la mhm. moo tax ñun ñu jël ko def ko suñu référence waxuñu sax si ni ko yàlla bindee ci yonentaam ci martabaam ci maqaam ak yooyu déedéet mais ci citoyenneté rek mhm. Seydina Issa ni mu defe woon Cambérène 49 la génn àddina 1949 mais bàyyi la nañu école française à l'époque bàyyi la nañu dispensaire bàyyi la nañu centre de santé mhm. astafurlah bàyyi la nañu poste de gendarmerie bàyyi bàyyiloon na maa ngi lay wax marine lu nekk defoon na ko. Mhm. Cambérène mhm. donc ñun tey fi ñu toll woon ci état lu ko waroon yomb la. pour mu gérer suñu situation. Mhm. ñu ngi ñëw nag ci problème bi mu amee ku nekk ñëw na ñu ngi koy rafetlu di leen jaajëfal bu baax a baax mais ñun li ñu bëgg. waxuñu ay solution yoo xamante ne si nii. problème tey bi justement lan mooy solution bi tey am plan. décennal euh, euh, d'assainissement. au pluvial. ok amu leen ko ba léegi amuñu ko. nan la war a def tey ba. ndox nga xam nga bi fa nekk. Hmm. mi ngi déparé euh, Parcelles Assainies. presque ci côté golf bi. Hmm. ak entre Cambérène bi. Hmm. donc loolu Cambérène tax ko woon jug bu njëkk. tali bi ñaar la woon bu njool ak bu gàtt. pantoon pantoon benn dafa nekk ci kaw. benn bi ci suuf. de ce fait tali bi ndox bi yu jugee Cambérène yëpp. yu jugee Cambérène dafay wàcc ci foofu noonu. yu jugee parcelle dafay wàcc ci foofu noonu. mu daje fa stagné na fa quelques mois. ba nawet bi jeex ñu ñëw nettoyé ko oto yi commencé waa di fa jaar. Hmm. de ce fait benn voie allée bi moom lañu daan séparé en deux. Hmm. mu nekk voie aller et retour. léegi nag dinañ koy yëkkati. Hmm. bi ñu ko yëkkatee ñu ko yëkkati canalisation yi ñu fa def. c' était prévu juste pour parcelle Assainies dong. ngeen bokk leen ci woon. ñun bokkuñu ci woon. dañu dabe. ni ñu dabee mooy temps yi bu fekkee di nga ñëw Cambérène. ma gis ñu baare tali centrale bi. di defar travaux yooyu noonu man je dis. que ni loolu noonu. Mhm. amul njariñ pour Cambérène. lu am njëriñ tey kon. li am njëriñ. Mhm. moom mooy ñu ñëw indi plan boo xamante ni si nii. Mhm. ONAS moom moo koy tracé. xool Cambérène xool tous les points ba yi nga xamante ni si ni moom moo nekk Cambérène mhm. ñu def fa canalisation boo xamante ni si nii dina mën a jàll mhm. ñoom ñoo xam géej lañ koy yóbbu mhm. wala dañ koy dalawaat step bu nekk Cambérène loolu pour man moom mooy solution concrete boo xamante ni si nii mën na jariñ Cambérène loolu ci biir loolu est-ce que travaux yi bañ ko doon door boole nañ leen ci yéen comme ça ngeen mën a joxe seen xalaat ci wàll wi si boole nañ ñu ci euh, parce que dafa am benn comité boo xamante ne dañuy wax CIDEC comité d' initiative. Mhm. pour la défense de l' environnement de Cambérène. CIDEC mhm. boobu noonu. ñoom ñoo doon gérer problème mu euh, émissaire u Cambérène bi. Mhm. parce que bi ñu demee en deux mille en deux mille dix. la dafa amoon benn projet boo xamante ne si ni c' était financé par l' Union européenne. bëggoon pro yokk capacité. ndox bi nga xamante ni mooy jóge step Cambérène bi pour dugg Cambérène ñu yokk ouvrage bi mu mën a dem à mille sept cent ci biir plage bi. boobu nag comité boobu ci la jógoon bi mu jógee. taxaw ànd ak doomu Cambérène yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger mhm. ak doomu Cambérène yi nga xam ne ñoo nekk fii nii xeex ak Union européenne ba Union européenne retiré waat financement boobu noonu ñu mujj combat ah, ah, combat boobu noonu ñu mujj ko perte mhm. ba problème bi ci am ba mhm. bi li bëree ñoom ñu taxaw ni léegi li ñu bëgg mooy sëriñ bi ci boppam sax le xalif général des Layènes moom moo defoon déclaration euh, ci turu Mamadou du Laye al imam ñu koy ziar au passage di ko ñaanal yàlla wéral ko guddal fanam mu wax ni xalifa bi nee na nañu génnee tuyau bi sans délai mais waa SEDEC yooyu. Mhm. ñoom ñoo nekkoon entre Cambérène. Mhm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ONAS. Mhm. léegi nag bi ñu demee di lijjanti loolu yàlla dogal ñu amaat ci euh, projet dix villes d' assainissement yi nga xamante ne si ni moom nañu programme programmé woon état du Sénégal moo ko programmé. ñu dugalaale ci Cambérène. mais assainissement boobu sax déjà peut-être dinañ si ñëw. ñun pour ñun ni mu doxee baaxul. Mm-hmm. waaw te dinañ wax ay preuves et joxe ay. Mm-hmm. suñuy gis-gis yi nga xamante ni mm-hmm. c'est des PQ. ci assainissement lu tax doxul lu tax doxul. voilà lu tax baaxul moom mooy que ni. Euh, bi ñu ñëwee defar nañ ko. jël ay tuyaux de de trois cent diamètre trois cent. ndaw na trop. pour mu boucher yomb na benn. ñaareel bi mooy euh, regard yi nga xam ne def nañ ko fa. dafa commencé toj déjà. Mhm. nii nii nii te assainissement bi démarré wul. am na yoo xam ni man maa ko gis. Mhm. kenn waxuma ko maa dem ba foofu gis ko bi inondation bi amee ku tiit. Mhm. te nga gis ni sa koñ am na benn regard bu fa nekk da nga ko tijji. soo ko tijjee dafay commencé di refouler ci point bas yi. ok yooyu c'est des faits yoo xamante ni si nii. day tey xel. pourquoi parce que dara xewagul. gars yi affaire di refule seen biir kër yi. dara xewagul affaire yi ñu ngi toj te dëkku suuf la. kenn pavé wu ko kenn goudronné wu ko. amul bénéficié wu leen ci pavage yi. non non non non loolu moom amul ko agsiwul Cambérène quoi xabru Seydina Issa moo ci am. Mhm. ak Cambérène 2. mais. Mhm. ñëwul biir Cambérène. Mhm. loolu moom bénéficié wuñ ci. taw bi ñëw def ay yàqu-yàqu gis ni. Euh, jeunesse bi wàcc ci mbedd bi di ñaxtu ba dañ leen mujjee sax wax ngeen dal donc est-ce que loolu jaroon na ko fi wala war a utoon solution gënul woon tey wàcc si mbedd bi. ut solution pour inondation bi. ah oui mais mooy li ma la wax seetaan bee metti ba tax na ngeen yéen itam. Ah, wàcc si mbedd bi benn affaire réew fi ñu toll nii. non fi point point bi nga li ma la wax ci seen ay ndaanaan la fi mu tànn tey mooy buntu ndakaaru tey beneen bi su tëjoon Dakar du dox ñun xam nañ loolu. léegi pour état yëg ni ñun li ñuy li ñuy dund dafa metti ñoom nan ñëw nan nan jël seen wàlla mhm. mooy ñu def leen loolu ñu bloqué oto yi mhm. kenn bañ a dem bañ a dikk euh, citoyen lambda bi am problème mhm. état du Sénégal am problème ñun Cambérène ñu am problème su ñun ñëpp suñu amee problème dinañu daje xool solution. Mhm. parce que ba tey jii ni ñoom tegaguñu solution. boobaak léegi dara amul luñ ci ñëw. mooy mooy dañu dagg tali bi moom laa wax travaux yooyu noonu nga xamante ne si nii tey. Mhm. mi ngi déparé Parcelles Assainies. Mhm. jëlal ay vase nga teg première vase pente bi fu mu nekk. première vase bi nekk ci kaw. dernière bi nekk ci suuf. balaa balaa suuf suuf du dem ci kaw du jeex. ok Parcelles Assainies dafay jeex tàkk affaire bi mujjee Cambérène. je profite de cette occasion. maa ngi dégg Moussa si muy def ci benn Euh, benn vidéo mhm. euh, di di di wax naan vraiment ñun sonn nañ dëgg la sonn nañu mhm. unité 7 day taa unité day taa ba Cambérène dafay taa mhm. dëgg la li tax muy wax loolu pour ñu boole projet yi la te gis naa ni état du Sénégal loolu la ñu bëgg mais bëgg naa Cambérène bàyyi xel ni parcelle moo nekk suñu ginnaaw ñu ñoo nekk ci suuf. buñ ko defaatee noonu vase yi. Mhm. kan lay sonn suñ ko boole ñun mhm. ñooy sonn Cambérène. Mhm. nañu fexe am benn plan boo xamante ni si ni. c'est pour la commune de Cambérène uniquement. bu jàllee. ñu defar benn bu unique bu Parcelles Assainies mu jàll de ce fait kenn du gàllankoor sa morom donc bu ñu boolee ñaar yi da ngeen gaañuwaat mu ne moom lañ def nii moom laa la wax ni la dafa jógee ci marché Seyna Mandione lañu la ñu démarré boo demee foofu di nga gis canalisation bi mais tuyau bi mu jaar dafa ndaw dafa ndaw mhm. léegi pour mu jeex mhm. il faut lu nekk ci biir kii bi génn ba vidéo ba set mhm. lañ leen di door ci mën a mën a topp léegi nag ñun bu ñu doon tijji sax regard yi biir Cambérène ndox bi dafay refoulé c'est-à-dire élie mu dem mais dafay refoulé parce que fees na fële te air bi fii la mën a génne da koy génnee Cambérène c'est-à-dire c'est des problèmes yoo xamante ni si nii lu ñu war a toog càmbar ko te waxuma sax ay ñu woo ay techniciens yu dëkk Cambérène non non man gisuma loolu li ma gis mooy ñu ay techniciens de l'État ou bien des techniciens cabinet boo xamante ne dafa neutre. Mhm. ñëw indil ñu projet bi teg ko. Mhm. léegi nag ñu woo ñun suñuy borom xam-xam ñu yaakaar ñu ni leen projet bi lii ak lii ak lii moo ci nekk. ñu xool li nga xamante ne mooy njariñu Cambérène ñu jël ko doxe ko mhm. li nga xamante ni si nii euh, loraange la ci Cambérène ñu jéem a xool ban solution la ñuy teg par rapport ak loolu plusieurs situation bi je pense loolu su amee état bi du am problème cabinet bi nga xam ne ñoo ko gère du ñu am aussi du ñu am problème ñu ubbi serveur bi continuer waxtaan bi vingt 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ba tey ci lancé boobu la ñuy waxtaan mais VDN 3 bi ngeen itam daf leen jural loraange situation bi tey war nañ dooraat liggéey bi état wu Sénégal doon na sàkku koppar waaye ba léegi amul lenn luñ ci wax lu leer tey laka ngeen di sàkku tey ci VDN bi. waaw VDN 3 bi euh, xam nga mooy mooy li ma la wax sànq rek que ni ñun ñun xam nañ posture bi ñu nekkee en ce moment. Mhm. état du Sénégal euh, il faut mu bàyyi xel Cambérène. parce que. kàngare Cambérène nag ay kàngam yëpp ngeen ne dañ leen bàyyi ginnaaw. si na waar ba fa nekk. Hmm? boo xamante ni si ni état reconnaître na ko est ce que xam nga ni Cambérène amul député est ce que xam nga ni Cambérène amul ministre est ce que xam nga ni Cambérène amul directeur général est ce que amul PCA. c'est-à-dire ñu li ñu metti bari na de dañu toog est-ce que mës nga gis ñu taal pënë ni dañu war a jox PCA wala dañu war a jox ministère et pourtant pourcentage bi président Macky Sall am euh, Cambérène. Mhm. amu ko fenn ci département de Dakar. 53 pour cent la am amu ko fenn amu ko ci benn ci benn ci benn commune. Hmm. kon moom war na bàyyi xel Cambérène ñun nag ñoo mën a ànd ak yow bëggee géej gi fer waaye ñoo la mën a bàyyi ba nga ni lii lu mu doon. beneen 3 bi loolu mooy problème bi bi dañu amoon problème. mur la woon. Mhm. président nañ ko daaneel. depuis deux ans Azur waxul deful dara. Mhm. bind nañ lettre bindaat répondre ñu def démarche dem ci presse bi. Mhm. man ma ñun bokk nañ ci ñu jëkk a dem 2STV. Eh, good morning ñu toog foofu wax génne PV yi nga xamante ni amoon na entre. Azur turu collectif bi waaw entre Cameroun non Cameroun sama diwaan laa demee quoi. ok xamale ma léegi euh, bi ñu bi ñu rombee ci loolu noonu. jeunes yi. Mhm. ni dañu war a def conférence de presse samedi. mën leen na ci dal acca am na ci ak ñoom saf ci sa parce que njëriñu Cambérène fu ñu koy doxee ñun duñ des gannaaw. Mhm. ñu def point de presse bi le jour ji ministre bi woote recevoir ñu le mardi samedi lañ ko def mardi ñu recevoir ñu. bi ñu recevoir mu ni la 15 septembre lañuy ñuy démarrer ba léegi léegi démarrer na mhm. démarrer nañ mais. démarrer démarrer démarrer. timidement. xam nga xam nga tamit des fois moo tax da ngay am xol buy metti que ni. gars yi dañu faalewul Cambérène quoi par rapport ak yeneen communauté yi par rapport ak yeneen capitale religieuse yi xam nga ni Cambérène mooy capitale de la communauté laayeen xam nga loolu du Yoff de Yoff foofu la Seydina Limaamu juddoo foofu la wootee foofu lañ ko denc mais Cambérène la sanc Yoff hmm. Seydina Limaamu dafa judd fekk ko fa mais moom moom moom Cambérène ak li ko wër yëpp loolu tey hmm. bu fekkente ni si nii état du Sénégal dañu amoon problème. Mhm. pour gérer ay milliards. Mhm. ñu jël mbokk moom ci ligne bi. salaamaaleykum. maaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu. soxna si ñu ngi lay nuyu di la bu baax. waaw. bi ak foo ñuy woowee. waaw tur bi ak foo ñuy woowee. ah Cambérène lay woowee ah. yaay Libaas waaw ah, bisimilah ñu ngi lay déglu bu baax. ah ñoo ngi sant yàlla. jërëjëf. ñoo ngi julli ci bàyyi laay mhm. ñoo ngi ñaan suñu borom yàlla ni am jàmm te moom ko mhm. yàlla leen defal jàmm yéen waa rajo bi jërëjëf waaye sama benn bi maa ngi koy a gudd fu ne wér mhm. di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla ndax moom ka dara ngir ngir ngir ngir ndeyam ak lépp lu ñu di kon li ma koy ñaanal damay bañ a guddal damay ñaan yàlla yoonu ñu dëgg ma suñu borom yàlla ko ñu def yàlla defal ndam ndax yëg nga ndeyam fonk na ay waajuram joxe lay cër mhm. dëkk bi wax dëgg yàlla amu fi noonu ñëpp koy ñaanal jàmm mhm. moom walu ti ko nga ñaanal ndax moom wutul dara ngir ngir famille am mhm. nee na lépp lu muy am Cambérène ko tax a jóg kon Cambérène gi ka ñor ba tax ñu jóg maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla ko yàlla may ndam si barke Seydina Isaa mi moom dëkk bi barki maam mhm. mhm. mu nekkoon lu am solo parce que émission bi am na fu muy toll dina doon métti trop ba tey yaa ngi woon ci accès VDN 3 bi donc dafa war a bar suñu la déggee mu wax dinañ la may temps mhm. nga euh, santi ñooñu ñëpp incha allah alors dafa war a bar nga jàpp ni tey ñun dañu jàpp ni état du Sénégal fullaalu ko. état du Sénégal faydaalu ko. Mhm. xamul lu tax mënuñu am projet boo xam dañuy wax bi ñu ooyee ba ñu ñëw dañu ne ñu dañ am problème. 7 mhm. milliards la ñuy lijjanti. avant juillet bi mhm. boobu c'était au mois de juin mu avant fin juin Umar yi mooy wax de mën nañu finaliser am nañ ci yaakaar mais pour bañ wax date bi andu nañ ko bàyyi quinze septembre insha allah dinañ ko defar kon commencé mais ba quinze septembre projet huit milliards nga indi fa benn camion ak benn pokane man pour man. Mhm. yëpp man weesul yàpp nit ñi wax loo gis ni pare wuñ pour. liggéey non pare wuñu pour liggéey dañuy ñëw pour tappale. Mhm. loolu tappale la gis nga sa waa ji bu fekkonte ne si ni projet cent millions la sax war nañ mën a indi équipement bi nga xamante ne si ni moom méngoo ak liggéey ba fa war a dem. Mhm. mais indi wuñu ko ku fa dem nii di nga ko gis xam nga bu fekkee ne si ni da ngay liggéey te bëgg liggéey bi tegu ci yoon kon wàll yëpp da ngay teg yëpp ci yoon genre yi moom mooy tax lu nekk di am ci dëkk il faut ñu moytu frustration te ñun peut-être man maa mën a wax de hmm. mais boo defoon micro trottoir dem Cambérène wala wala nga woo benn da ngeen mer yéen non dañu mer peut-être ñeneen dinañ dugg pour confirmer suñu suñu suñu mer bi ñu mere état du Sénégal hmm. parce que fi mu nu war a teg teguñu fa xam nga nit di nga am sax ay soxna yu bari mais kenn ku ne da nga koy teg place am hmm. di nga am foo far ñëpp xam na ni fii nga far amul problème. Mhm. mais jox nga ñu cër. mais yéen ku war a porter seen plaidoirie yi tey mooy maire ba. wala mu maire bi mu ngi fa. xam nga dafa am loo xamante ne si di. bien vrai que ci xaw ma mouvement sa bokk xaw fu mu bokk. waaye euh, moom moo waroon tey jëmmal baatu Cambérène. parti au pouvoir la bokk. Mhm. xam nga am na loo xamante ne si nii munoo nekk ci parti bi ba pare bëgg di ko di di di. di ah, ko defee bu fekkee diwaan ñoru la nag. voilà noonu lay demee mais ñun tey toog nañ ak président de la république li taxoon bugguñu toog nañ tout récemment ak un ministre de la république wallahi al azim ñu yow kay relier APR ma ne ka man Cambérène mooy sam problème ndax bu ngeen jàkkaarloo ak damay jàkkaarloo ak yéen wallahi nii laa ko tontoo parce que dañ la bëgg a jël loolu gëm mhm. man li ma gëm moom mooy man kenn ma jënd parce que aw ma njëg man libaas laa tudd loolu rek amul njëg chance la bàyyi laay laa gëm ak Seydina Isa alayhi salaam am na loo xamante ni si nii nit mënu ko yaakaare ci man man gëmuma loolu hmm. du ma dox ci loolu man li ma gëm ak koo mën a doon tey ñëwal Cambérène yow amal projet pour Cambérène nga ñëw dimbali ma nga xool ndax du ma ànd ak yow maay ànd ak yow affiché wu ba Samba ca Demba te lu mu jar pour ñu pour yow nga am ci ndam dinaa ko def ndax lu dëggu la hmm. li may bañ mooy nga ne ci ay tappale ak loo xamante ni gëmoo ko bëgg ma ci dugal man du ma ci dugg hmm. jafe-jafe Cambérène lu ko waral mais mooy yow yaa ko wax léegi am na koo xam ni moom moo war a gérer suñu suñu ay mbir te mi ngi toog parce que ci parti au pouvoir la bokk. dama bëgg nga waxal ko sa bopp. non non jafe-jafe Cambérène lu ko su ma la déggee mooy kan la. am non xam nga tey. Mhm. Euh, monsieur le maire kenn ku ne ak ni ko ni ko yàlla bindee maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. Euh, ci inondation yi. Mhm. damay romb booy naan ma. Eh, eh eh monsieur le maire eh monsieur le maire bon man bugguma loolu sérieusement bu yàlla rek taxee may wax parce que tollooguma foofu. et je suis maire mën na nekk parce que je suis conseiller municipal. mais yéen ba inondation yi jibee léegi ñoom dañ ma naan. Mhm. man leen lu tax ngeen may wax loolu ñu ne ma non yow la ñuy gis sur le terrain. parce que xam nga inondation ndox bu ñëw mënoo ci dara. est-ce que doo topp gars yi. mais bi ñu jaay la rek. yooyu mais nga ñëw non non xam nga mhm. <laughs> xam nga jay moom. koo xamante ne dafa rëy lañ koy def quoi man rëy ama problème je suis humble. Mhm. bu ñu la nee monsieur maire gars yi par procuration. déggoo ma mën naa uyoo mais bien sûr. <laughs> Eh, donc j'ai ma carte conseiller municipal. Mm-hmm. donc mën naa taxaw fu ma neex nii hey eh, man je suis un maire en ce moment tant que le maire ñëwul taxaw sama kaw. Mm-hmm. kenn du nekk sama kaw. léegi yéen est-ce que porté ngeen yéen ci niveau mairie bi yéen teg ngeen ay jéego ngir mën a xool naka ngeen di dimbalee askan wi parce que maire bi moom ngeen fay wala waaye équipe la. le maire n'a pas de moyens la mairie de Cambérène n'a pas assez de moyens. Mm-hmm. xam nga tey wax naa la ko sànq bi ñuy tàmbali. Mhm. nga ne découpage administratif bu Sénégal il faut ñu xoolaat ko. Mhm. xam nga tax ñu war ko xoolaat. Mhm. Euh, Cambérène mooy li ma la wax li mu joxe lépp. tey mën nga wax croisement Cambérène nga ni bokkul ci Cambérène nga ni centre horticulture Cambérène nga ni bokkul ci Cambérène nga ni marché Seydina Limamou Laye nga ni bokkul ci Cambérène nga ni marché Jàmmalaay mooy actuel Gueule Tapée ñu ni bokkul ci Cambérène nga ñëw ni marché Seyna Mandione nga ni bokkul ci Cambérène mhm. rond-point case ba des Parcelles Assainies de Cambérène mhm. nga ni bokkul ci Cambérène c'est-à-dire après yow mooy li ma lay wax ko lu mu am lu mu am waaw c'est un point d'interrogation laaj ko lu mu am Cambérène amul dara amul dara lu peut-être fonds de dotation kese <laughs> donc loolu lu ñu war a taxawal la mhm. loo xamante ne président de la république lu mu war a yegganti la xam nga comme maire bi ci partem la bokk je pense que ni moom dina ko mën a wax hmm. ñun am nañ notre façon à le faire hmm. ñu ngi ci te dinañ ko def mooy lan heure bu jotee hmm. bon xam nga tey nag kenn du dem ci ay mbir di wax say stratégie ah, déet waaw waxuñu stratégie waaye tey pour indi saafara rek mooy ñu ngi ci ay jéego nii Mhm. ñu ngi ci ay jéego ni yaa ngis gis tey fu jot pour ñu wax ñu ngi wax. Mhm. wax bi peut-être moom moo mujjee temps yi ni mhm. corona bi moo arrêté suñuy activité activité bu nekk def nañ ko Cambérène. sur le plan du sport. <laughs> def nañ fa lu nekk may nañ fa ay dossard may fa ay ballon organiser fa ay tournoi de football sur le cadre de l' éducation. dem nañu nettoyer école yi chaque année. mouvement Cambérène sama diwaan moo koy def. Mhm. ñun ñooy maye des fournitures scolaires. Mhm. donc sur le plan sanitaire. Mhm. dem nañ toog ak le président de la république mu jox nu ambulance médicalisée mu andi ko. Euh, dimbali nga ma sax. mu waxoon ñu ni ni. ñu élever plateau technique. fu mu taalu Cambérène. boobu noonu tey je pense que ni c' est le ministre lui-même qui doit réagir. da nga jàpp ni foofu la tàggee. no xam nga xam nga bi ñuy bi ñuy wax loolu. c' ak Eva Maricol Seck. sama yaay maa koy nuyu au passage. yaay xamante ni. ku fonk Cambérène la ku bàyyi xel Cambérène la ndax dañuy waxtaan ba tey jii ni man a moom dañuy wax. ah loo bëgg a wax foofu kon yow waxuma pour. Mhm. ñu indiwaat ko ci ministère bi. Mhm. waxuma pour. Mhm. ñu bàyyiwaat ko feneen. mais xam naa ni ku amal njariñ. askanu Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr amalul njariñ Cambérène amal na njariñ Cambérène bu baax. bu baax sax. bu yàlla rek taxee may wax. amal na njariñ Cambérène. dégg lu tax na euh, hôpital bi yéexee foofu. njariñ li fii la doon safee. moom laa doon wax njariñ li mhm. fii la doon safee te laa ju Sarr mhm. ni mu nekkee ministre de la santé dëkk yoof mhm. te yoof ak Cambérène nee naa la c'est entre le pair et le fils amul différence benn gox la benn bàyyilaay la ak naa Issa ku fay jéem a indi leneen yow yaa xamul lu xew mais ñun ñi xam xam nañu ni yoof benn la Cambérène benn la amuñu ci problème ñun donc tey liñ doon xaar ci moom du ay problème am mu ñëw du ñu defal c'est bien boo mhm. am na solo. Mhm. parce que dina tax ñoo xam ne yëg nañu. Mhm. dëfal bi lan la si jublu yow gisoo amoo da nga jàpp ne daa am si jublu. waaw non xam nga xam nga dëfal bi moom faw mu am parce que gëj na ko amee na ko nag. mais fan yii xam nga ministre yi dañ waxuñu woon dara ci Cambérène parce que ñun libaas kan dañuy dem di toog ak autorité. ñu naan non foofu zone laa Diouf Sarr la. ay rey daf lay jàpp mais munoo ko défendre parce que ñoom loolu la ñu jàpp. mais ñun biir nañu ni du zone Abdoulaye Diouf Sarr Cambérène mhm. du zone Abdoulaye Diouf Sarr am na fa ay militants nag mhm. comme man ni ma amee ay nit yoof ok c'est très simple kon ñëwam yi bari ñëwam bi ci mu mujj bii nii mooy am na ay ministres yu ñëw ndax su nekkoon moom dafay ñëw pour dimbali nu mhm. je pense que nii ba ñu nee wooy mooy egsi parce que moo nu gën a jege ba ngeen jaaxle daal moo bokk si ñun waaw bi ñu jaaxlee ñëwul ñëwul de. Mhm. léegi nag li ñuy xaar ci moom. Mhm. parce que gis nañu ba ci xalifa Sall sax ndax moom euh, xam nga yàlla dafa boo dafa dogal moom wéru Cheikh la yore mais dafa gëm ni ndakaaru nit mënu ko defar te defarul Cambérène. moom Khalifa Sall moom Khalifa Sall mhm. dafa gëm ni ndakaaru nit mënu ko defar te defarul yoof ndax Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam. moom moo nekk yo moom moo nekk yoof moom moo nekk Cambérène moom moo nekk ndakaaru région bu nekk am na mbër mu fa yàlla teg. mais xam na ni fii naa Limam moo fi ne te jox nañu cër boobu. Mhm. te delloo nañu njukkal boobu ñun tamit delloo nañ ko ko. daal libaas nekkul di ut ñu xool nu muy allié ak Khalifa Sall. Khalifa Sall man instant bii nii xaaruma ci moom pour allié ak moom. Mhm. ni muy jàppalee Cambérène nii. Mhm. su taxawoon ni moom dafa bëgg dara nii. instant bii nii xam nga waxagul dara. bu waxee dara te muy te mu gëm ko ñu ànd liggéey. man kaa ma wax la benn affaire xamoo ne li si Khalifa Sall moo xam nga lool. taxawu Dakar ñoo ma investir dafa am yu ma waxoon yoo xamante ni dañ ko war a def defuñu ko wala boog buñ ko defee yëguma ko maa ngi ciy xaar bu ma xalifa ne kaay dama bëgg lii ma ne ko lii ak lii ak lii comme ci doon pour être honnête sax man waa kër Sonko sax ñu ngi waxtaan pour nga xam ne man nekkuma ci logique gu ay ñëw bootu sa ginnaaw déedéet man soxlawuma dara président de la république laa toogal mhm. mu ne ma yow vous êtes un jeune macha allah. Mhm. vous communiquez très bien et vous êtes engagé. Mhm. vraiment j'ai besoin de lui nu may def pour ñu j'ai besoin de toi nan laay def pour ñu ànd mais boobu mënoon naa marchander. mais marchander wu ma xamal lu ma ko wax. Mhm. Cambérène mooy sama problème. il suffit nga defar Cambérène. koo mën a doon si àdduna. ma ànd ak yow. ba tax na hôpital bi tag ba tey. hôpital bi. Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy defaat un appel solennel. woowu rakk. ak yitteel na leen de ah. hum hôpital bi yitteel na leen mais nit munul munoo def dara te wéroo nit munul jàng te wéroo mhm. soo fa doon football dammo tay taj yàlla bu mu am mhm. dañ lay jël yóbbu la CTO radiographie sax amu fa cest sibiru lañ fay faj mhm. temps yi sax ak comité bu bees bi fa nekk ñu ngi góorgóorlu. di am ay relation di di jéem a indi yeneen médecin urologie affaire yooyu noonu mi ngi fay commencé di am. Mhm. mais tey ñun xaaruñu loolu plateau technique bi lañ bëgg mu élevé ko et puis moom Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. son directeur de cabinet monsieur Diouf ki nga xam ni moom la waa OMS woo tout récemment. Aloïse Aloïse. Mhm. mais bi mu ñëwee Cameroun dafa ne woon ñoom pare nañu. pour jël cent million def ko ci bâtiment hôpital bi pour defaraat ko non seulement après élevé plateau technique bi. loolu c'était en deux mille dix huit. deux ans après dafa yàgg. ba léegi ñu ngi koy fàttali bu dee da ko fàtte mhm. nanu dimbali hôpital bi ñor nanu de hôpital bi mhm. nit ñi suñu wéree dinañu xalaat nit ñi bu ñu wéree dinañu jàngi mhm. nit ñi bu ñu wéree dinañu liggéey mais nit munoo feebar ba pare bëgg yenn yi munul nekk dañ jàpp ni yow foo tourné da ngay sànni xeer Abdoulaye Diouf Sarr lan mooy seen problème wallahi azim billahi wallahi taalaay Abdoulaye Diouf Sarr lu ma ko yéene ci ndombal tànk lu ma ko yéene ci teraanga yàlla naa ko si bu dee teraanga rek. yàlla naa ko si jiitu lu ma ko yéene. mais nag defam loo xam ne ay nit ci dëgg la nu mën a ànde. man du ma ànd ak kenn ci ay par par parparloo est-ce que xam nga li may wax ci micro yi nii toog naa ak son conseiller spécial. Abdou Aziz Ndoye waxtaan ak moom. toog naa ak son chef de cabinet maire Yoff Babacar Mbengue toog naa ak Ibrahima Fall son CC au ministère de la santé xanaa kooku li mu war def yëpp def na j'ai le numéro de Abdoulaye Diouf Sarr je l'ai appelé au téléphone jëlul je l'ai envoyé un message réagirul li may bëgg a wax foog mu dégg ko mooy lan mooy mu ñëw dimbali Cambérène parce que fauteuil bii mu toog tey fauteuil yu Chérif Abdoulaye la moom mooy ministre du Dakar Serigne mooy yilif Ndakaaru ba moom goroom la ñun ñu am cër buñ koy xoole nañu delloo cër boobu laay maxtaar mooy mu ñëw dimbali nu suñu sante bi Abdoulaye Diouf Sarr lu mu def Cambérène du fa safe parce que moom mooy le ministre de la santé mhm. et de l'action sociale donc mën na dimbali Cambérène ci ci fànn bu ne mhm. action sociale jeexal nay wax mën na jaar ci action sociale dimbali nu ci éducation bi mhm. mën na jaar action sociale dimbali nu ci sport bi mën na jaar action sociale dimbali nu ci ci famille ci ci pour le problème des enfants mais quand même ñu dellu si waat ci mbënn mi ginnaaw boo mbënn mi amee gis nañ dimbal yi nga xam ni ñu ngi koy commencé di joxe ndax euh, Cambérène moom jot na ci. ah ci bu ji war a jógee ci état bi. waaw yaakaaroon naa ni Cambérène moo ci war a jëkk a jot parce que Cambérène moo ci jëkk. ba ba tey yëguma ko. bu amee tamit. Hmm. yëguma ko parce que kuy wax da ngay yàlla. bu dee am na. Hmm. man Libasse Kane yëguma ko. Hmm. ndimbal gi de commencé li ma ci metti li ma ci metti leen rek la te ma dégg monsieur le maire en personne mu wax ko ci télévision bi. mu ne dañu amoon benn liste bu ñu dressé ba pare. le préfet. Mhm. ni ko liste bi dafa ëpp. après ñu wàññi. tey yëgoo liste boobu. non liste boobu yëguma ko. am naa liste bu ma jot nag boo xam dafa am benn comité mooy SIDEC bi ma lay wax. Mhm. ñoom ñoo doon xool ñi nga xam parce que man maa ngi préparé maa ngi wax samay partenaire ñu dimbali ma aussi comme ni ñu ma defaloon ci Covid bi. Mhm. ma dimbali askanu Cambérène. loolu maa ngi koy préparé maa ngi remercier la famille Guèye. ñoom xam nañ su ma waxee dinañ comprendre li may wax. maa ñoom Baara ci kanam dinaa ci ñëw ni nga ko waxee. mais tey euh, tey waaw li ñu doon xaar ci moom préfet. dañ mhm. ko fal on l'a nommé monsieur le maire on l'a élu. Mhm. moom na jël ay responsabilités vis-à-vis ak ak préfet bi mu xamal ko ni moom li xew Cambérène préfet bi xamu ko. ñun ñoo ko xam. bi mu amee dañu wax les délégués de quartier nu ñu recenser seen quartier. Mhm. ñi nga xamante ni si nii ñoom ñoom mënd bi yàq seen kër. mais mënd bi bu fekkente ni si nii sa mën laa la yàq sax au moins war nga bokk ci liste boobu noonu dañ la ko war a fay. mais waruñu ñëw di wax ay wàññi nañ ko ñu wàññi ko ba mu nekk ay quarante et mhm. quelques personnes affaire mais est-ce que waxtoon ngeen waxtaan ci moom laa la wax comité boobu noonu mhm. mooy comité bi ma la wax xam nga man dama yor a mhm. su ma assister man li ma gëm man yàlla moo mën na toog sama position du am looy bi gii tag naas par par dafay leer man su ma ànd yow dama naan la yow laa àndal su ma àndul ak yow di nga xam ni man ànduma ak yow ndax ànduma ak yow nit du ko wax mais samay jëf moo lay wan ni ànduma ak yow est-ce que comprendre nga baax la ma bi ñu wootee yi ñu teewlu yëpp dañu wax ni nañu wax délégué de quartier yi ñu nuyu le passage euh, le secrétaire de délégués de quartier muy Libaas Ndiaye mm. professeur ñu ngi koy nuyu moom ci boppam am na liste bu ma jox boo xam ne cent quarante six personnes ñoo ci nekk te man am na ñoo xamante ni xam naa ni yàqula nañ te nekkuñu ci liste boobu le jour bi may bi may xool liste bi laa dégg monsieur le maire wax loolu mm-hmm. ma ni kon liste bi dem na mais ñooñu yàqule tey nan lañ leen di gérer. loo gis ci list boobu ñu bind. Dakar politique dañ ko euh, ju non fan euh, lay teg wàññi bi mu wàññi nit ñi. koo xamante ne si ni sa dàll daf ci réer dañ la ko war a fay parce que dañu génnee état du Sénégal dafa génnee budget pour gérer mënd bi su fekkoon génnewul budget dañu wax ni kaa ñu dimbali leen te yàlla rek tax ñun la non comme yow sa dàll moo ci réer mhm. jarul nga ciy sonn quoi mais pour man képp koo xamante ne si ni sa jaaro nopp daa wadd ci ndox mi sax mhm. da ci bokk dañ la war a bind ni kii réeral na jaaro xaalisam wala jaaro përëmam wala jaaro oram ñu fay ko ko parce que c'est l'État qui paye du moom du du du du préfet bi mhm. man man foofu laa gisee man nga itam est-ce que jotoo itam jotul itam nga àddu ci mbir mi xool ni koy ngeen ci wutee saafara xam nga tey euh, étant conseil municipal suñuy waxtaan ñun Cambérène mhm. dañu bokk quoi bokkul ak benn dëkk Cambérène yàlla moo ko bindee c'est le Sénégal en miniature tey xeet boo soxla mhm. am na Cambérène man gëm naa ni ku mën a gérer Cambérène sax mën nga gérer Sénégal parce que situation bii rëcc rëcc gi am ci réew mi yëpp mhm. mi ngi Cambérène donc du coup ñun dañu bokk loo xamante ni kenn mënu ko séddoo mhm. tey monsieur le bi ma lay wax nii xam nga lu ñu bokk ay jarbaatam samay doom lañ ku bokk ak moom ndey ak baay mooy sëy ak koo xam ne ñoo bokk benn pap kon benn ngeen. mais benn lañ mais du tee. Mhm. li nga xam ne askan wi moo ko moom. Mhm. dañ la koy wax. parce que loolu noonu moom man personnellement daf ma metti xaw ma ñeneen yi mhm. mais loolu man su ma ci amoon dogal. loolu dañ koy rectifier. parce que waruñu fekk ay nit. yu liggéey toog tëju di ci waxtaan di dem sur le terrain di enregistrer di ñëw. après seen liggéey boobu yëpp dem en l'air. au nom de quoi. jot nañu ratifier ko kon. Ah jot nañu ratifier loolu. monsieur le maire. alors waxtaan ci euh, suñu la déggee kon ngay li nga fi wax nii yëpp tey. Cambérène boo doon def bilan ci maire bi euh, dana xaw a sévère tuuti de. maire bi. Hmm. maire bi ndax ndax mun naa ko defal bilan nii nii nii nii xam nga xam nga bi ñu commencé dafa yàgg. ñun dem nañ sur le plan. fàttali itam conseiller nga. dem nañ ci plan sur le man sama position dégg mën la day leer. dañuy voté. Hmm. wala ñu war a def ñaata budget ngeen am ba pare. seen budget milliard milliard et ah lu na de. du caaxaan non du caaxaan. waaw ah, léegi nag génne bi defar ay kii lu muy takk. waaw bon xam nga tey xam nga mës naa la wax ni la euh, conseil municipal bi daf ci am ñoo xamante ni si peut-être seen seen taxawaay mooy gis nañu ni. li maire bi def baax na. am ñoo xamante ni seen taxawaay li bi di def baaxul. loolu foo dem ci àdduna dafay am. Mhm. man lu mën a doon ci àdduna suñ demee ba toll ci vote su ma ko gëmul. je dis su ma ko gëmee je dis su ma su leerul sama bopp je m'abstiens. man noonu la ma yàlla bindee. lépp loo xam ne nag jot na pour ñu wax ci. Mhm. inondation yi dafa jotoon pour ñu génn wax ci bu baax a baax a baax. moo taxoon ñu génn wax ci. Mhm. mais tey lépp loo xam ne pour ñun jot na ci Cambérène pour ñu wax ci. non ñun du ñu xaar de midi à 14h dañ ciy wax. Mhm. lu ñu ci fekk ñu jël. li ñu intéressé mooy. dañu am cofeel ci des fois dañuy toog gis ay nit wala ay ñoo xamante ni si ni dañuy wax wala ñu def yoo xamante ni tu dis ni est-ce que jar ci ko. mais xooloo leen bi nga am yow ci Cambérène. Mhm. moo la dul bàyyi sa conscience ak loolu. daf lay wax eh jógal yaa ngi ñiy yemu leen jógal dox li nga war a dox. Mhm. ñun loolu rek la ñu gëm gëmuñu ci leneen. Mhm. léegi maire bi gestion bi tey naka nga ko gisee 2014 ba tey lan nga mën a jàpp ni loo xam ne mën nga ko laal ni lii liggéeyu maire bi la. waaw euh, loo xam ne da nga koy teg sa loxo Cambérène peut-être Margo bi mi ngi koy defar euh, ak ak des partenaires peut-être euh, douze jumaa ji aussi mu ngi koy defar. Mhm. ak des partenaires loolu nga mën a gis yow ci lu mu def. ah après nga dem Cambérène nga laajte. Mhm. peut-être aussi euh, comment dirais-je euh, y a une maison de la femme boo xam ni projet PIDES. Mhm. ñoom ñoo ko financé c'est des partenaires. loolu daal moom. gis nañu ne mi ngi koy def. mais entre autres muy def ci suuf sérieusement duñ ko duñ ko duñ ko gis xam nga des fois maire maire yi moom dafa dafa dafa yaatu quoi am na loo xam ne c'est visible mhm. am na loo xamante ni c'est pas visible quoi mhm. loo gisee kon lu bari des na ah bu baax a baax a baax mhm. lu gën a jàmp tey lu ñu war a defar ci Cambérène no Cambérène instant bi nii moom dafa waroon génn ci inondation yi wax bu baax tapé sur la table moo gën a jàmp moom moo ko waroon def moom lii may def nii c'était son rôle moom ah mais bu bëggul bu bëggul fës euh, a ah, bu fës kon yëfi yëfi ñëpp la yor ah. yëfi ñëpp na ko foog nga bàyyi xel ñëpp loolu mooy yoon affaire bi nekkul man Libasse Kane man da yaakaar bëgguma am relation ak benn ministre wala benn député wala benn président de la république bu may seet si di ma may xaalis ak yooyu noonu da nga yaakaar bëgguma ko bëgg naa koy mais loolu ca derrière Cambérène moo ma gën a loolu parce que jun dañu gëm ni Seydina Issa moom moom dëkk bi ñun duñ ci dara ay surga lañu dañuy liggéey rek te yàlla tax léegi nag loolu noonu tey mhm. bu fekkente ni si nii ñun fàtte nañu li ñu tax a nekk ci dëkk bi bis bu ñu demee man li ma jàpp mooy Seydina Issa bu ñu xoolante ak moom dañuy sëgg. ok te ñun bugguñu loolu. ban projet nga am ci Cambérène. Cambérène day développement rek laa ci am projet de développement. ok lu ci tey nga am projet bi lu gën a jàmp tey lan la. tey jii nii pour Cambérène. waaw xam nga assainissement bi amul lu ko gën a jàmp. assainissement eau pluviale ak mhm. ak assainissement kii bi nii. Mhm. amul lu ko gën a jàmp en semoment moment à Cambérène. loolu suñ ko defaree ba pare. Mhm. après ñu jublu ci hôpital bi. suñ jógee ci hôpital bi après ñu dem ci école yi gis nga cadre de vie école yi sax boo ko xoolee yow da ngay bëgg jooy mhm. enseignant ya fa nag ñu ngi leen di saluer au passage parce que ay jàmbaar lañu ndax parents d'élèves yi aussi ay jàmbaar lañu ndax bu ñu xawoon xool environnement bi rek mhm. mën na tax ñu tayale jàngi maanaam am na lu ñu ci war a def. ay jéego yu bare xam nga éducation compétence transfert la. yooyu ay responsabilité la laaj. xam nga Cambérène dafa jot ñu am quelque koo xamante ni si nii dafay dafay mettre les points sur les i. Mhm. c'est-à-dire di di wax dëgg te yàlla tax. gis loolu dafa am solo quoi gis nga projet bu mu mënti bu mu mënti doon ci àdduna. Mhm. kun ko mënti jox amal yu dem ci askan wi. ñeme leen. nan la xas nan la saagamee wax leen dëgg. parce que yàgg-yàgg dëgg boobu noonu dafay feeñ gis nga tey projet bu mu mën a doon su ñëwoon tey dañ bëgg a def assainissement wu Cambérène mhm. woo askan wi kaay leen dañ bëgg a def assainissement assainissement dafa am ay dafa am ay ay conséquences am ay inconvénients inconvénient bi mooy day boucher mhm. su boucher ndox mi dafay tuur te loolu ndox mu ndox mu setul la ndox mu sellul la mhm. xam leen loolu su amee au minimum vingt quatre heures quarante huit heures la ñu door a mën am temps pour ñëw déboucher ko loolu foog nga comprendre ko askan bi mu xam ni lii ñu koy defal dafa am njariñ njariñ li mooy amatul fu muy def foos moom mhm. ba pare dootul fay vingt mille francs chaque mois di vider foos am mhm. mais ndox bi dafay dem mais amal amal courage yu ni leen tamit wax leen ko li nga xamante ni moo ci ne mhm. dafay am léegi loolu suñ ko xamee su amee nan ni ah saa waxoon nañu ko de ñu dégager des responsabilités ñooy mais su ñekkee non assainissement non njëriñ la nangam gi nga bu bouché gars yi dañ naan yéen ko fi defal kenn bëggu fi lii daf nu sonal ak lu mën a am ci àdduna muy mhm. projet bu mu mën a doon état ak projet VDN bi sax bu nekkoon tegee nañ ko comme ni ñu ko war a tege je pense que ni mhm. problème yi du am gis nit ñi mhm. dañ leen dañu war a am habitude sooy jiitu wala soo jiitee wala suñ la jiitalee nga am ngoru delloo askan wi li nga xam ne ñoo ko moom mooy dëgg wax leen dëgg dañ la jox alal jox nañ ma alal ji pour éducation mënu ma ko def ci éducation santé moo gën a jëm foofu laa koy yóbbu buñ demee ba jamono ñu ni. Mhm. nangam ak nangam yow di nga ni ah lii kat mënul nekk. Mhm. li tax mënul nekk moom mooy que ni ah. lii moo tax lii moo ok mais soo leen waxul dara wax leen lu neex li kese. Mhm. bu naqar amee sa kaw lañ jëm. élection locale. waxuñu date bi ba tey mais ci date bu mujj bi dañ ne au plus tard euh, laata mars deux mille vingt et un ba tey dialogue gi mi ngi wéy pare nga pour samp sa nënd ci diwaanu Cambérène. waa xam nga ñun bu ñu bu ñu tolloo ci wax ko. dafa mel ni euh, wax bi da nga koy xaw a daw de. non du daw. Mhm. du ñun yow ñun. nga wala pare woo. xamuñu daw. Mhm. xamuñu ragal. mais lépp loo gis. Mhm. nañ koy gérer. lépp loo gis mission bi da nga koy gérer no ñun tamit suñu fay dañ koy gérer. ba nga xamante ni si nii fépp fu ñu ci toll. fu ñu waree wax ak askan wi. dañuy génn wax askan wi mais pare nga. non man li ma pour samp sa nënd su ma paree te ñi ma àndal pare wuñu du sotti parce que maire du yow rek maire équipe la il faut nga am équipe am équipement am am ay stratégie yoo taxawee door man ni man man wax nga ni yaa ngi ay pourparlers ak ay nit ndax kon yaa ngi liggéey ci suuf xam nga ñoom dañu bëgg ku leen taxawal ci gox bu ne mhm. réew ku ko bëgg réew bëgg faw nga am stratégie yooyu def Abdoul Mbaye sax waxtaan nañ pour nga xam ni man ma kenn Abdoul mbayoo Sonko waa P waa APR yeeg ñëpp ñu ngi waxtaan mais man personnellement li may itteel mooy Cambérène. boo ci doon àndal koy ci am pareegu ma pour ànd ce kenn su ma ci paree dinaa ci taxaw génn ci wax ci def déclaration bu leer loolu moom ñun. Hmm. ragaluñ loolu ñun moom yàlla dimbal nañu ba xaw ma lu ñu ñàkk man je dis souvent suñu défaut sax mooy fit bu rëy. mooy suñu defu mais loolu maa ngi ciy jégalu bu baax askan bi parce que loolu mooy tax de je ne pas de midi à quatorze heures pour mën a wax lii wala pour mën a def lii daanaka jukki nañ ci ay ponk yu bari bu amee benn ponk bi nga xam ne yitteel na la te bëgg nga ko wax mhm. lan la après ñu dem ci mot la fin bi loo xamante ni yitteel na ma te waxoo ci bon je pense mel na ni def nañ wax lépp voilà alors kàddu gu mujj gi dañ la koy bàyyeel rek. naanaan nga. Mhm. macha allah yow dañ lay ñaanal rek yàlla yàlla dëgëral la. jërëjëf sàmm la suturaal la vraiment journaliste au niveau nga. pourquoi moo ko mooy maa ngi lay dégg maa ngi lay déglu. jërëjëf te gis naa say question elle est pertinente donc loolu nit bu ci nekkee am xam-xam bëgg ko te mu jaral ko. Mhm. mën na ci jariñu loolu moom dañ koy dañ la koy jaajëfale. beneen bi. Mhm. moom moo di ne ñun ñu ngi remercier képp koo xamante ni suñuy partenaire nga. Mhm. ci Libaas xam nga tey waaw maa ngi dégg keroog ñuy wax ci affaire assainissement bi xam nga DG. Mhm. de dégg naa ko mu ni ci RFM matin la ko waxee. benn bi mu def ko ci euh, comment dirais-je. mooy seen kiiw vendredi bii ñu doon def école du parti école du parti mhm. dafa ni woon bii 74 milliards la wax mhm. bii mu wax 71 milliards nga lim bi leer bi moo tax kenn bëggu ci avancé nañu dimbali mhm. waxuñu dëgg mooy li ma wax rek li nga boo jiitoo booy wax askan du dëgg jàmm rek ngay am parce que lépp neex sa kër sax amu parce que faw mu am fu metti bien sûr moom président Macky Sall ñu ngi lay woowaat encore une fois ak ñu Serigne Mbaye Thiam Lassana Gagny Sakho. Mhm. génn leen ñëw nañ fa. ah ñëw nañ fa. jaar nañ fa jaar nañ fa. jaar nañ fa jaale njaboot yi affaire yooyu noonu mais xam nga gars yi dañuy ragal ku leen yuuxoo moo tax ci pet lañ koy defee mais ñun dañ leen di wax ne jarul ñuy nëbbatu nañu ñëw ku ñu tooñul ñun. Mhm. jotewuñu ak yow dara. ku ñu tooñ nag. Mhm. loo ci bañul bañu na ko ci. <laughs> Cambérène yaa ngi dégg toujours ñuy wax ay dañuy def ay affaire rébellion nangam nangam. mais mosoo dégg ñu ni ndox amul Cambérène taal na pëna mhm. wala daje nañu di di di di def ay marche mosoo dégg ñu ni courant amul ba ñuy def loolu mhm. saa yu ñu ko defee rek dañu tooñ saa yu ñu baaree tali bi rek dañu tooñ donc askan wi mhm. nañuy bàyyi xel loolu te di leen wax ni ñun li askan duñu dara lépp Serigne Ablaye la lépp njabootug Seydina Limaamu la mhm. ñu leen di nuyu au di leen ziar mhm. di di di ziar sama wëlëre Sëriñ Idrissa mhm. ku ko xam-xam maak man di ziar aussi Imam Bachir ak képp koo xamante ne si ni njabootu Baye Laay nga maa ngi lay jox sa loxo sama loxo ñoom Ibou si nekk Sëriñ Abo maam Njiin mu bàyyiraat ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mhm. Euh, di rafetlu vraiment seen taxawaay ci dëkk bi. Mhm. di ñaan sunu boroom yàlla dolli jàmm Cambérène. Mhm. dolli jàmm ci réew mi. di remercier la famille géey si jàppale gi ñuy jàppale. di remercier aussi dooleel Libaas Kan am na aussi benn émission bu ma déglu. tout sama euh, iRadio. ma dégg euh, Habib Niang. ànd suqali Sénégal. Euh, chef service cadastre bu euh, chef chef de bureau. Mhm. cadastre bu géejawaay mais kooku nee na dafa xam assainissement. Mhm. ba pare di tagg Macky Sall ci ci rajo beeg euh, di di di wax wax yoo xamante ne si ni macha allah. Mhm. kooku. naka président jox assainissement ba xam lu mu ciy def loolu la jàng. Ah. te bëgg na ko. Ah. lool laa am lu may wax maa ngi jégalu bu baax jërëjëf moom itam di ko loo xam ne. Mm-hmm. Mm-hmm. heurte na nit mm-hmm. bon vraiment maa ngi ciy jégalu jublu ma ci woon loolu. man li ma bëgg rek mooy. ñëpp ñu am. jàmm Cambérène daal moo la ñor Cambérène daal mooy sama yitte. ñu koy sant di ko gërëm. Adama di gërëm ñi ko ñi mu àndal ñëpp itam. di sant itam sama technicien bi di Adama jox leen dig daje ba dimanche ak beneen invité incha allah.